ñu outali maire bu ndakaaru gannaaw capitaine touré ki nga xam si modi guy mari sagna la kon maire ba fa bañu fafal yes di euh, kon barthélemy dias khatimal ap contrat laaj bi nu samp nak modi ne ndax noné nu len di jëlé loi bi moko xamlé tontu li ak mohammed jodiop gannaaw ex capitaine de gendarmerie bi di seydna oumar touré guy mari sagna moom tamit amna liggéey ci maire bu ndakaaru ndax recrutement yoyu and nañ ak yoon bu ñu ci code des collectivités territoriales amul len lo xamné mun na gàllankoor seen nomination ak sen liguey fofé ci mairie bu Dakar bu ñu ci expert en décentralisation bi di Amadou Sène Niang. Ah, recrutement yu yu yu normal la parce que en fait euh, maire la yoon jox muy def ak dindi ci biir commune. moy doxal li ñu dogal ci kaw bu fekkee Seydina Omar Touré mën na am du am jafé jafé Guy mari Sagna mi nga xamé né ba légui ci suñu xibaar mo ngi ci fonction publique bu Sénégal liggéeyam ci mairie bu Ndakaaru bi waru ci mëna a fayeeku benn koppar. fonction publique mëno ko bolé nek leneen boko ko nekkee mën nañ la ci taan xëj na peut-être mom dina def dina wax ban la si bëgg man mii nek na agent assemblée nationale ñu defoon ma conseil spécial à la à la ville de mais c'était cent vingt finances financières. maanaam amul payeur du ànd ak xaalis. bu ñu sukkandikoo ba léegi ci Amadou Sène Niang dañu war a yeesal benn yoon texte yi rawatina décret bi nga fixé organigramme type yu collectivité territoriale yi. li ñuy seet est-ce que ci dogal-dogal bi sañ na ko est-ce que xaalis prévoir nañ xaalis pour loolu ci budget bi est-ce que. par rapport à l'organigramme, parce que l'organigramme type, c'est pas appliqué partout comme cela se doit. Et ça devrait être comme, comme, comme ça. donc organigramme type bi mooy mairie bu nekk ñan ñoo fa war a liggéeyee. recrutement yu yees yi ñu ñemeku ca mairie bu Dakar tax na ab débat juddu fi ndax euh, recrutement yooyu aw na ci yoonam déet ki ñuy waxtaanal moom nee na amul benn sooxe sooxe ci recrutement yooyu bu fekkee li tax a jóg rek moom mooy jëmmale jëmale exécutif locaux yi ca kanam. jaajëf Mouhamed Jodiop fédération générale des travailleurs du Sénégal ñoom nag ñi ngi artu maire yi nu fal yees ñoom nag li ñu xamle moo di ne dañoo seetlu ne jamono ji dañuy daal di dàq ñanu fa fekk ndax ne ka leen fa wutoon moo leen fa teg su ko defee ñu mën a dugal seen i ñooñ te lépp ci politique rek lañ ko teg ba tax ñu ni ñoom it dinañ daal di jóg ngir xeex lu ni mel ñu teewlu ci loolu seen secrétaire général di Sidia Ndiaye gannaaw jokkoom ak Mouhamed Jodiop. gis nañu ne am na maire yoo xam ne xam naa ne ou bien comprendre lu dara ou bien dañuy ñu day def yëfu maatay daal di suspendre contrat yu bëri bëgg a génnee ñooñu ñi fi nekkoon am seen contrat CDI wala CDD bëgg leen remplacer par d'autres travailleurs parfois ce sont leurs militants alors je crois que ça c'est extrêmement grave extrêmement grave d'autant plus que le président de la République quand il, il installé le conseil supérieur euh, de, la fonction publique locale avait attiré l'attention des élus pour qu'ils respectent le droit des travailleurs malheureusement dans certaines collectivités locales vous avez parlé de Goltier je peux citer le cas de Djembereng. J'ai posé les cas d'autres côtés locales où, quand les, élus locaux sont arrivés, ils ont voulu tout de suite mettre à la porte les, les travailleurs. non saisir euh, l'autorité compétente pour lui dire euh, de mettre de l'ordre dans ces communes-là, hein, attirer l'attention et, et on va les attirer devant l'inspection du travail d'abord pour demande d'arbitrage. Si rien n'est fait, on va aller devant le tribunal. Parce que nous estimons qu'un euh, contrat, quand on le remet en cause, on doit respecter les formes